إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa ta'ala seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la bu mu yónni woon ci ñun di ko ñaan yal na yàlla sax di julli ci moom ak njabootam ak ñi koy nangoo topp ba ila yawmi diin mbokk jullit lii nga xam ne mooy ak ngëm yàlla lu bari ci jaami yàlla yi day dañ koo woote woo waaye suñu borom yàlla daa am ñum ci dëggal ñooñu mooy ñan borom bi nee na xam leen ne ak mbaax du jóg taxaw di julli naan yaa ngi jublu penk wala sow waaye mbaax dëgg mooy ki gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm li nga xamee ni nii moom mooy yowmil aaxir gannaaw ba heure boo xamee ni nii day dige mu matal dige ya muñ ca jamonoy ñàkk jamonoy feebar jamonoy geer jox jege ñaale yi ak ñay ñaan la nga xam ne mooy seen àq suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ñu mel nii day ñoom ñooy ñu dëggu ci seen ngëm ñu mel nii day ñooy ña nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla su ko defee mbokk suñu xutba bii mi ngi fàttali la gën a yey ci doomu aadama di ko xam la gën a yey ci doomu aadama di ca taxaw te mooy la nga xam ne mooy ngëm ngëm mooy lan ngëm mooy garab gi nga xam ne moo nekk sa biir xol di génne ab dat di génne ay car di génne meññeent noonu la ko borom bi jalla wa ala waxe alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi sama tu'ti ukulaha kulli xiinin bi izni rabbiha borom bi mu ne xanaa xamuleen misaalu kaddu gu teey te mooy kaddu gu laa ilaha illallah gu sax ci biir xol mi ngi mel ne garab goo xam ne garab gu tedd la ay reenam sax ci biir suuf ay caram yéeg kaw asamaan meññetam bi di génn waxtu wu nekk te loolu mbokk jullit képp koo xam ne da ngay jàpp man day gëm naa aanoo gëm ci xol rek lay nekk xol rek a am solo xamoo luy ngëm moo ko ngëm garab la ci biir xol bu reen ya sampe garab ga bu baaxee fokk datt ba génn car ya génn te loolu mooy ngëm gu wóor gu baax fokk ñu gis borom ngëm googee jëfe ndigali yàlla bàyyi tere yàlla mbokk ngëm googu tege na ci loo xam ne nii yaatu na lool yaatu na lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii di pàcc ngëm yi nekk na juróom ñaar fukk yu teg mu ne lii nga xam ne yaa ngi gis luy lor ci aw yoon nga dandal ko ba jullit ñi bañ cee loru loolu sax ci ngëm yàlla la bokk muy wane ne kon ku jël ay lor ak i salte di teg ci yoon xamoo luy ngëm yàlla mu am nag juróom benn ponk yoo xam ne ñoo ko téye te loolu yellul ci benn jullit mu koy réere juróom benn ponk yooyu mooy suñu xutba tey su ko defee yow jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa toog ak sahaaba yi yàlla yónni ci moom jibril mu feeñu leen ci melokaanu doomu aadama ñëw toog ak yonent bi laaj ko ay laaj bokk na lam ko laaj ay yow yonent bi yàlla bi lan mooy ngëm yonent bi ne ko gëm dey mooy nga gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm allaaxira gëm ay dogal la ca neex ak la ca naqari mu ne ko wax nga dëgg loolee saxaaba yi yéemu kii mi ngi laaj naan wax nga dëgg kon kii li muy laaj xam na ko am na yeneen laaj yu ca topp ba nga xamee ne waa ji jóg na dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam na saxaaba yi ndax xam ngeen ki mu doon laaj kan la ñu ne ko déedéet mu ne mooy jibril alayhi salaam daa ñëwoon ngir jàngal leen seen diine loolu it mu war bépp julit ngal la waay ne fexe jàng juróom benn ponk ngëm yi ba ca gën a màgg gën caa am solo moom mooy gëm yàlla mooy gëm ne yàlla am na loolu moom jamono bi ñuy dund tey di jamoy jamonoy athéisme pur et dur ñoom ñoo dem ba weddi na yàlla amul waaye mboolem mushrikoon yi fi jaar yépp xamoon nañu yàlla am na kon dañuy gëm ne yàlla moom ko am la ñaareel ba nga gëm ne yàlla moom mooy rabbu yàlla bind lépp yàlla moom lépp yàllay taxawe lépp mooy dundal mooy rey mooy wërsëgal ila axiri waaye ñetteel biit nga gëm ne yàlla moomu dong dong dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu képp koo xamee ne nii lu aju ci jaamu yàlla yàlla yeyoo ko nga jiñ ko keneen yaa ngi koy bokkaale képp ko jàpp ne wërsëgam wii ci keneen lay jóge ci ku dul yàlla képp ko jàpp ne la koy daqal lor ci keneen lay jóge ku dul yàlla képp koo xam ne yaa ngi rendi ñeel keneen ku dul yàlla képp koo xam ne yaa ngi sujuut ñeel keneen ku dul yàlla yaa ngi jàq di woo keneen ku dul yàlla ku mel noonu mbokk julit xamal ni yaa ngi bokkaale ak sa boroom subhanahu wa taala boroom boobu nga xam ne lépp ci loxoom la nekk moom dong mooy ka nga xam ne nii moom la ñu war a jaamu sunu boroom boobu nee na lépp loo xam ne tere naa leen ko jaam bu ko defit boo ñëwee su ma neexee ma bal la agresseur yaag njaalookat yaag naan ko du sangara yaag loolu lépp lu yeyoo sawara la waaye su ma neexee soo ñëwee ma bal la waaye képp ku ñëw yowmal qiyaama di ma bokkaale ku mel nii moom araamal naa ci moom ajjana sawara lay sax xaalidiina fiiha abada loolu moo tax ba mbokk julit njaaloo ko bon agression ko bon nan sangara ko bon waaye la ko gën a bon ki naan diw laa yaakaar àdduna ak àllaaxira kii jàq naan ay yow yaa seen diw ki nga xam ne jàpp na ne xiiwal yi ko yàlla wërsëgal au lieu mu sant ci yàlla mu ne maa ngi sant seen diw looloo gën a bon mboole mi bakkaar ndax loolu bokkaale la dalay xañ àjjana di la saxal ci sawara xaalidiina fiha abada ay yéen mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko dajeeg yàlla bokkaale woo ko yàlla dana la tabbal aljanna képp ko dajeeg yàlla di ko bokkaale loo ko mën a defal du tee mu tabbal la sawara la nga xam ne it mooy am solo ci ngëm nga ngay gëm yàlla nga gëm na suñu borom yàlla moomee daa am ay turaki melokaan masalan tey boo doon jàng fatiha rek yaa ngi ubbee yàlla alhamdulillahi rabbil alamin mboole mi sant ñeen na yàlla mooy kat mooy ar rabb rabbul alamin yàlla yow yaay ki bind yaay ki moom yaay ko taxawee gannaaw ba nga ne ko arrahman yërmaande yépp sa loxo la nekk arrahim mooy ki yërëm ay jaamam gannaaw ba nga ne ko almalik yàlla yow yaay ki moom yii mooy ay melokaan la loolu ngay gis ci qul huwa allahu ahad allahu mooy ahad kenn rek la mooy assamad mooy ki ñépp yaakaar koo yaakaar yàlla la yaakaar moom la malaaka yi jinni yi nit ñi ñépp yaakaar assamad yii ay turu yàlla la yoo xam ne jullit da ko war a gëm gëmit ay melokaanam suñu borom yàlla ak amam dañ ko war a gëm lépp lum ñu ca wax masalan wax nañu am na ay loxo loxo boobu nee na muy ngëpp asamaan yi ak suuf yowmal qiyaama bokk na lu jullit di wax daañu saxalal yàlla lu mu saxalal boppam yàlla nee na am nay loxo am nay loxo am nay bët am nay bët nan la loxo yàlla lu mel loolu jullit du ko laaj ku ca jéem a tontu yaa ngi dugg ci kéeféer ndax yàlla nee na laysa ka mislihi shay'un yàlla dara melul ne moom waaye nag dañuy gëm lam waxal boppam gëm la ko yonenti yàlla waxal boppam mi ngi noonu lii mbokk benn tënk la ci gëm yàlla jalla wa ala ñaareelu ponku ngëm mooy nga gëm ay malaaka gëm na yàlla moo leen bind ci leer gëm na yàlla moo leen bind ci melokaan yu wuute am na ci ñoom ñu am ñaari laaf am ci ñoom ñu am ñett fanweer téeméer ba seen kilifa ga ñoom ñépp di jibril alayhi salaam am na juróom benn téeméeri laaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko mu ne saddal ufuq bi mu jàkkaarlu jibril mboolem asamaan yi jibril la koo fees del alayhi salaatu wasalaam kooku mooy kilifa malaaka yépp loolu ngay gëm gëmit ne yàlla da leen a sant ay service am na ci ñuy wàcce wahyu ci yonent yi di wàcce téere yi ca mi ngi mel ni jibril alayhi salaatu wasalaam am na ko yàlla dénk wërsëg yi muy mikaayil alayhi salaatu wasalaam moo koy séddale am na ko yàlla dénk arwaax yi mooy jël ruux yi mooy malakul mawt am na ko yàlla dénk moo yor béjjén bi di nar a ëf asamaan ak suuf tasaaroo nar a ëf ñépp dekki am na ca ñoo xam ne da leen di wàcce ci ay jaam jaam yooyu bu ko defee ñu leen di saytu di enregistré la nga xam ne moom la ñuy dundee bokk na ci yow jullit góor ak jigéen xamal ne fajar gu nekk yàlla wàcce la ñaari malaaka ñi ngi ànd ak yow di enregistré lépp loo xam ne yaa ngi koy def suñ demee ba tàkkusaan yàlla wàcce yeneen ñaar ñoom ñeenti ñépp ñu daje ci yow su tàkkusaan passé ñaar yi fi nekkoon ci suba yéeg jëm ci seen boroom ña nga xam ne ñoo fi ñëw ci tàkkusaan fanaan ak yow ba fajar yeneen ñaar ñëw relevé leen loole yow jullit danga ko war a gëm suñu borom mu ne inna alaykum la xaafizin kiraman katibin yaalamuuna ma tafaluun maa ngi leen di wàcceel ay malaaka yoo xam ne ñu tedd lañu ñuy bind li ngeen di def ca dara réeru leen ca la nga xam ne yéen a ngi koy jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam moon ci jox détail boobu ne ñaar lay doon suba ñaar lay doon la nga xam ne moom may ngoon mbokk julit bokk na ci ñetteelu ponk bi gannaaw ba nga xamee ni nii gëm nga borom bi gëm ay malaakaam mooy nga daal di gëm la nga xamee ni nii moom mooy ay téeréem ca téere yooyee bokk na la nga xamee ni nii moom mooy ca jiitu woon moom moom mooy ya jiitu woon na doon tawraat la na doon injil la da ngay gëm ne yàlla mas naa wàcc ay téere bokk na ci téere bu mu wax tawraat moo ko wax ci alquran injil moo ko wax ci alquran zabour moo ko wax ci alquran bii mu jox ko Moussa Daawuda ak Isa ibn Maryam téere yooyu dañuy gëm yàllaa ko wàcce woon waaye nag téere yooyu du lu ñuy jëfe lan la ñuy jëfe mooy téere bi nga xam ne daa ñëw ngir corriger mboolem njuumte ya nga xam ne ahlul kitaab dolli woon nañ ko ci seen téere ak lañ ca wàññi woon muy alquranul karim su ko defee alquran moom ngay gëm ki weddi benn aaya alquran moo ki weddi téere bi yépp a yem afa tuminuuna bi baadi alkitaabi wa takfuruuna bi baad ku weddi benn aaya moo ki weddi téere bi yépp a ñëw alquran jooju suñu borom yàlla ni wa innahu la zikrun laka wa li qawmik wa sawfa tusaluun yàlla da ko wàcc ci ñun muy aw yoon wuñu war a jaar suñu borom yàlla tëral ni yowma alqiyaama su ngeen ñëwee dinaa leen ko laaj yoon la woo xam ne képp koo xam ne topp na ko fala yadillu wala yashqa ku topp alxuraan du texee di ku topp alxuraan du torox àdduna du torox alaxira képp koo xam ne wan na gannaaw alxuraan suñu borom mu ne danaa xatal ak dundam danaa ko dekkal bu ko defee mu doon koo xam ne ni ku silmaxa la ñu baxañ ko yóbbu fa nga xam ne mooy sawara ay yéen bokk julit gannaaw ba it la ñu war a gëm ñeenteel ba ay yonenti yàlla yi yonent yooyu nga xam ne yàlla leen tànnoon ki ci jëkkoon mooy yonent yàlla nuux ki ci mujjoon mooy yonent yàlla muhammad ñu war a gëm képp ku yàlla tudd ci ñoom yàlla tudd na ci ñoom ñaar fukk ak juróom ci téeréem bu tedd bi mi ngi noonu ñaar fukk ak juróom ci téeréem bu tedd bi ña ca gën a màgg juróom lañu moom la ñu tudde ulul azmi min rusul mooy yonent yàlla nuux alayhi salaam mi ngi noonu yonent yàlla ibrahim alayhi salaam mi nga xam ne mboolem yonent yi ñëw gannaawam ay doomam lañu yonent yàlla Muusa alayhi salaam mooy yonent bi gën a màgg ci bani Israil yonent yàlla isa alayhi salaam muy jésus christ mi nga xam ne nii mooy yonent yi nga xam ne nii mooy dernier yonent avant suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yooyu dañ leen war a gëm waaye kenn dong lañ cay topp muy yonent bi yàlla mujj a yónni muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yaa ngi jaamoo yàlla ci neneen lu dul nam jàngalee jaamu yàlla googu yàlla du la ko nangul jaamu yàlla yooyu yàlla du la ko nangul képp koo xamee ne yaa ngi woon ci beneen diine diine joojee day boo ci bakkaalewul ak yàlla yàlla mën na laa jéggal tàbbal la aljanna waaye bis boo yégee ne yàlla yónni na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga weddi ko suñu borom mu ne képp ko weddi yonent yàlla muhammad sawara muy wàccu waayam lii la ñu war a gëm ci yonent yàlla yooyu ñun julit yépp ñu bokk gëm ne yonent yàlla muhammad gannaawam yonent amul doonte ne sénégal gi rek lu jege juróomi nit woote nañ fi ay yonent am na ci sax ñoo xam ne dem nañ ba ne yone seen bàyyi yonent yàlla muhammad mook seen bàyyi du ñaar kenn ki la kenn ki yàlla yónni woon ca makka mu weex moom la yónni mu ñëw tey mooy yonent yàlla muhammad loolu ñee nga xam ne dañoo jàpp ne soxna see yonent la amoon na fii ci gibraltar ci dakar ñoo xam ne ab soxna lañ jàpp ne yonent yàlla la soxna si woote yonent yàlla ñooñu ñoo tane parce que ñooñu ñoom dañoo duural ne yàlla yónni ne keneen ko dul yonent amaa nag ki jàpp ne yonent yàlla muhammad la yàlla indiwaat une deuxième fois mu daal di ñuulaat comme na weexe woon kooku def na ñaari musiba ñaari duural duural na ak ne baayam yonent la duural ne kii mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolee mbokk ñu war koo bàyyi xel bu baax amma la nga xamee ne nii mooy juróomeelu ponk bi mbokk mooy julit nga gëm ne allaaxira mi ngi ñëw benn sikkaamu ci bis dana mës a ñëw yàlla subhanahu wa taala tasaare mboolem li ci nekk ci kaw asamaan ak suuf yàlla toog bam neex mu defaraat ca la ko ca soob daa di ñuy defaraat ci suñuy biiri bàmmeel daa di ñuy bokk génne ñun ñépp lu muy albaas gannaaw bu mu daje lañu ñun ñëpp def ñi la ñuy tuddee yoomul xisaab xisaab mooy lépp loo xam ne mas nga koo def ci la nga xamee ni nii mooy kaw suuf suñu borom yàlla nee na danga da nga jàkkaarloog moom fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara depuis bi nga majeure ba keroog bi sa ruux di génn loo mas a wax loo mas a jëf loo mas a gëm loo mës a jëflanteel lépp da ngay fekk wa wajadu ma amilu xaadira wala yazlimu rabbuka ahada lépp yaa ngi fekk mu taw mu mu mu mu nekk di teewe loolee mbokk di yowmul xisaab ñu war koo gëm te war koo waajal ngeen baal ma ma profité ñaanal suñu benn góor muy Dramane Diallo mi ngi noonu rahimahullah suñ jàkka ji bi mu paree moo ko jëkk peinture lim ñu daan wax man ak ñoom Bilal Thiam ak ñi ñu doon toogal. def na 30 ans en Europe yàlla jaarale na ko ci ay situation yoo xam ne mu ne bu dul woon ak yowmul xisaab milliardaire lay doon ba ñu ko doon tooñe yowmul xisaab bu ñu ko waxee rek suñu xel dem ci moom loolu it maa ngi koy wax jeunes yi di ko lancer message ci képp kuy dégg sama kaddu nekk Europe wala Occident bàyyi leen xel lu ngeen yàgg-yàgg da ngeen di wuj ji seen borom ku nekk war a waajal yowmul xisaab muy àllaaxira bi nga xamee ne boo fa demee amul ku la fay jëriñ ku dul yàlla amul ku lay jëriñ du yonent yàlla muhammad du ibrahim du benn sëriñ boo yaakaar bépp njëriñ ci yàlla dong lay jóge xanaa kay yàlla mooy xool jaamam bu ko neex ne ko terala naa la nga ñëw ñaan ramu ma jéggal diw waaye amul kenn koo xam ne da nga dem ci yàlla na ko baal sama baay baal sama sama taalibe baal sama soxna la wallahi loolu amul yowm alqiyaama lii la jaam bi war a gëm bokk na ci gëm googee nga xam ne yowmal qiyaama mi ngi commencé bis bi nga deeyee képp ku dee rek qiyaamam taxaw na doomu aadama fi ngay deeyee fa ngay jàkkarloog malaaka yi bu dee ko baax la fa lañ la commencé di tagg xetu ajjana yi gi ñëw ci yow boo duggee bàmmeel mu nekk jardin jardin ajjana ba baa bis penc di taxaw saay-saay bi lalu deeyam fa la bol dayee commencé di dóor ci kanam di dóor ci gannaaw di xëcc ruux gi bu duggee bàmmeel mu nekk xufratan min xufari noor paxu sawara lay nekk ba baa bis penc di taxaw yii ay mbir la yoo xam ne jullit da ko war a gëm ci yowmal qiyaama amma ponk bi mujj ci ponk yi mbokku julit mooy nga gëm dogali borom bi jalla wa ala suñu borom yàlla day moo bind lépp lu mën a doon dogal ko nim la neexi xoolal sa bopp moo dogal ngay doon góor wala jigéen moo dogal nga njool wala nga gàtt nga weex wala nga ñuul moo dogal nga gudd fan wala gàtt fan lii lépp yàlla moo ko dogal yàlla it bind na lépp luy nar a am ci kaw su kaw suuf ba baa bis penc di taxaw ca it amul lenn luy am lu dul lu soob yàlla jalla wa ala julit bi gëm lii dana doon koo xam ne nii du saalit du sëggal kenn du toroxlul kenn day xam ne mbir yépp ci loxo yàlla rek la nekk yàlla dong lay dogal li yàlla dogal ci man kenn mënu ma koo xañ li ma li ma yàlla nurta jox àdduna ak suuf buñ daje woon mënuñu ma koo jox kon du jatt loosam ci kanamu kenn waaye dogalu yàlla yi da lay yóbbu la la yàlla may ci xam-xam may la ko ci alal may la ko ci pouvoir nga bañ koo bakkoo ca xam ne yàlla ko dogal nattu la bu la yàlla nattu nga sant ci yàlla bañ koo doon koo xamee ne nii da nga koy puukarewoo fàttalikul yonent yàlla Suleymaan ak nguur ga ko yàlla joxoon ba mu toogee ca Sham daa dina ko may indil tooguwaayu buuru ba nekk ca Yemen mille et quelques kilomètres xefe xippi affaire bi ñëw mu ne haa lii day ci mbiri yàlla la bu may nattu ndax dama koy weddi wala dama koy sant lii mbokk ngëm dogalu yàlla lii la su ko defee it lu la yàlla mën a teg ci nattu nga muñ ko muñ ko rafet xam ne yàllaa ko dogal yàlla mi dogal li heure bu ko soobee mën na koo teggi na doon loolu ak ñàkk la na doon loolu feebar la tiis la prison la jaaxle la ñàkk jëkkër ñàkk doom ñàkk liggéey ñàkk lu mu mën a doon bépp natt boo xam ne yàlla tegle na ko nga gëm ni lii ci yàlla la jógee ca yàlla moom mooy borom kun fa yakun lépp lu ko neex mën na koo changer heure bu ko neexee nga wékku ci moom dolli ci moom mbokk lii mooy la nga xam ne moom mooy ngëm gi ñu sunu borom yàlla di woote di ca jëme nga xam ne képp koo xam ne nii matal na ko ku mel nii mbokk day tranquille day tranquille waaye nag ñu bàyyi xel ñi ngi dund ci jamono yi agresseurs yi gën a bon ci agresseur rajo yi télévision yi liñ ciy woote guddeeg bëccëg sëñ diw amul moroom sëñ diw bam ne yàlla yàlla ne ko sëñ diw nangam mbokk julit nañu xam ne ab sëñ ab sëñ lim mënal jaami yàlla yi mooy jàngal leen la yàlla ak yeneen tam wax waaye képp koo xam ne jàpp na ne kat diw day yàlla may na ko loo xam ne tax na man ma gàll sama yaakaar ci moom àdduna ak alaxira mbokk loolee ak njuumte la sëriñ boobee la ñuy jàpp mooy jàngale wu ko dañ ko koo sosal dañ ko koo sosal waaye amul benn sëriñ boo xam ne jàng na diine xam ko ba pare di woote jëme ci moom suñu borom mu ne musuma yellul ci benn yonent ma jox ko téere ba pare fa yaqulu li naas kunu ibadan li min dunillah yellul benn yonent muy woote nit ñi naan leen yaakaar leen ma jaamu leen ma la wallahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun mboolam yonent liñ doon wax woo nit ñi jëme leen ci yàlla gëm leen yàlla yaakaar leen yàlla sukkandiku leen ci yàlla mbokk lii la yonent yi waxoon sunu sëriñ su baax si fi jaari lii lañu waxoon gannaaw ba bés bu nekk ñu dóoralal leen loo xam ne mus la nekk loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax ngëm yàlla mooy nga bàyyi sa xel sa boroom foo mën a toll xam ne yàlla day mi ngi lay dégg yàlla mi ngi lay gis yàlla yaa yor sama njëriñ yaa yor sama lor ca fu ko neex mu faat la fu ko neex mu faat la su ko defee yii yépp boo ci bàyyee xel nga la waay yow doomu aadama sa dund day dana teey yàlla moo ko déggee nee na képp ku jëf lu baax góor nga walla jigéen nga boole ko am ngëm gu sell danaa la may dund gu teey dund gu teey mooy dund gu dal xel sa xol bi féex sa xol bi dal mën na am ci néegu ñax nga nekk suum bi nga reere waaye yàlla dalay may dal xel may la féex may la jàmm ci sa njaboot may la jàmm say woy dencante amma képp koo xamee ni nii nag sa ngëm googu baaxul nekkal ca gratte-ciel yi nekk New York na la ganaar yaag serviteur yi wër du tee sa dund lay karaj sa dund lay xat sa xol du neex loolu moo tax ba góor góorlu waat leen suuxat seen ngëm yi suñu borom méngale nag xolu doomu aadama ak tool mu ne ay doomu aadama yi xanaa yellul ñu daal di dekkal seen xol yi ci zikrullah ak li ma wàcce muy alquran ñu bañ a mel ne ahlul kitaab dañoo dem ba yàgg seen xol ya wow ni nga xamee ne boo amee fii ab ab ab fleur di ko arrosé boo ko gëjee arrosé mu lax bu yàggee mu dee bépp jullit boo xam ne nii it gëñ naa toog di déglu waaraate ak alquran di déglu waaraate sunna bu yàggee ab xolom day wow loolu moo tax ba képp koo xam ne yëg nga benn place boo xam ne ña ngi fay jàngale diine yàlla ji góor nga jigéen góor-góorlul di fa dem ngiree sa xol di dund sa ngëm yàlla di dund ngëm yàlla gi lu mu gën a dund sa dund di gën a dal sa dund di gën a neex ngay gën a jege sa borom say dara ji di gën a yokk ci àllaaxira bokk suñu borom yàlla loolu la ñu woo jëmee yal na yàlla rafetal ngëm ci suñu biiru xol yal nañu yàlla soppaloo ngëm yal na ko taaral suñu biiru xol yal na yàlla def alquran muy naatal suñuy xol yal na yàlla teg ñu ci njubug alquran lépp loo xam ne yàlla woo nañu gëm ko yal nañu yàlla wërsëgal ñu gëm ko lépp lu ñuy lépp yàlla wax ñu weddi ko yal na yàlla wërsëgal ñu weddi ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin